dialogue bii Macky Sall woote nii Macky Sall wax ak Ablaye Wade waxtaan nañ ci le 12 octobre 2019 te pourtant couvrir ngeen ko ñoom ñaar du waxuñu kii wax dañu signer un communiqué conjoint ñu wax ne ñoom ñaar ñu ne fi ñu jëm ci Sénégal dafa laaj fu mu nekk nii ñu xool toutes les questions relatives au processus démocratique xoolaat le fichier électoral aller vers des élections démocratiques yoo xam ne yi dafa am kenn koy diriger personne neutre dañ ne question yooyu ñoom ñu ne question yooyu dinañ ko examiner dans le cadre du dialogue national. mu nekkoon seen ay revendications seen bëgg-bëgg. bien sûr le mhm. fichier électoral suñu bëgg-bëgg la. personnalité neutre bi aussi. suñu bëgg-bëgg la. Mhm. ñu wax ne nag ci foofu nañu libere xalifa Sall amnistier ko. Karim Wade ñun dañuy bëgg ñu topp li nga xam ne moom la commission des droits de l'homme wax Sénégal mhm. te Sénégal nangu ko ne nangu na ko moom nangu na ne protocole politique boobu moo supranational moo gën a kawe sunu constitution. donc lu xew tey nii lu ñu togg depuis 2019. mais waxtaanee nañu ko 2019 fekkee nga ko yow yaa ko couvrir bu ma ko laajaat. non dama bëgg a xam rek. parce que non war nga non mais yow yaa ma ko yëgal. yaa ma koy maa koy fàttali le le 12 octobre 2019 c'est quinze jours après Massalikul Jinaan mhm. le communiqué a été lu oui. par Mayoro a bien sûr ñu ngi koy fàttaliku ñoom ñaar ñoo ko dicté par contre communiqué bi am na waaw loolu bu ñu ko waxee 2000 ñun 12 octobre 2010 fàttewuñ ko bu ñu demee ba président taxaw ne leen dañuy dem vers dialogue nation mën nañu waxtaanee nangam. Mhm. pour la première fois mu tudd Karim Wade nekk ba pare teg ci ne Karim Wade moom buggul amnistie. waaw léegi ni ngeen ne kooku duñ ko ci fekk si. mais li ma bëgg wax mooy président euh, wax ji tey ak biñ ko dalee togg ak léegi depuis 2019 dafay xaw dëggal tuuti ñi naan am na lu xew seen diggante yéen ak waa waa waa waa waa nguur gi. bëgguma ci yegg ci ni nga koy waxee. mais xam loolu lay xaw a. loolu vi vi vision wu seen façon wu gis-gis yéen la. journaliste du présent yéen journaliste yi léegi noonu ngeen di gisee mais man wóor na ma ne bu ñu nekkoon ci beneen situation il y a quinze ans vingt ans Babacar Touré. Mhm. Euh, Omar Diouf Fall euh, ñeneen ñoom ñi ñëpp du ñuy am lecture bi. lecture bi si waxuñu dama lay ñenn ñi wax en fait c'est des hommes politiques comme vous. waaw mais xam xam nga ñenn ñi wax nañu leneen. oui yow yaa choisir loolu bàyyi li ci des. <laughs> ngoonte man ma wax la ñeneen ñi dañuy xalaatee. Mhm. dama ne jalook amul benn waxtu boo xam ne ci Sénégal waxtaane waxuñu ko amul benn bés benn weer boo xam ne bi le mot dialogue il faut dialoguer waxuñu ko ci benn benn instance politique amul. loolu te xam ngeen ko moom la ñuy wax partout mais bu waxtu bi jotee nag te nga mën ci bokk da nga ciy bokk. mais li ñu mënul comprendre président mooy euh, dialogue bi tey ni ngeen ko euh, rafetalee ni ngeen ko euh, solalee yëree ba nga xam ne lu jaadu la dafa xaw a woro tuuti ak seen position ci présidentielle 2019 yi on sentait un parti boo xam ne voilà bu bu ko déglu woon sax kenn du dem élection. waaw mais le 9 mai 2019 sorti des élections présidentielles. yéen dee leen daté seen esprit oui je sais mais dama ko wax mooy non mais il faut dater te loolu esprit février sorewul non mais 9 mai 2019. oui ak février 2019 sorewul ak ak octobre li fi dox dafa bari xajaloo bu méttee am na fi xeex am na fi mais dajale dajo daje Masaalikul Jinaan am na fi. Mhm. donc loolu da nga koy jàpp. bu fekkee ne mën leen situer seen raisonnement en fonction du temps ak contexte bi nga nekk du sotti.